tey ñu ngi fii ci njagañaaw ci commune Ndiaganiao tey ñu amoon suñu benn euh, euh, soxna boo xam ne mooy docteur Tening responsable politique APR yaakaar fii ci département de Mbour rawatina commune Ndiaganiao tey moo woowoon fanweeri chef de village ak juróom-ñett pour waxtaan ak ñoom. te ne ñoo jiite population Ndiaganiao Sandok. ndax waxtaan bi dafa am solo ci ñun am solo boo xam ne euh, lépp ci développement bi nga xamante ne président lancé na ko te mu ump woon ñu ci lu bëri ci wàllu courant bi ci wàllu yoon yi ci wàllu yoo xam ne daal bëri na yoo xam ne yii président lancé na ko te yaakaar naa fi deux mille euh, vingt cinq euh, programme boobu war naa mën a àgg fépp fu mu war a àgg ci biir réew mi ci biir askan gi kon loolu buñ ko amee tey am koo xam ne daf ñu ko indil faram-fàcceel ñu ko bu kenn ku ne lu la ci ëmp woon mu leer ci sa bopp kon loolu lu am solo la ci commune Ndiaganiao Sandok te ñu di ko gërëm ci taxawaay googu mu taxaw en tant que responsable en tant que ndaw bu jóge ci biir gox gi vraiment lu ñu rafetlu la lu ñu apprécier bu baax a baax a baax ci ñun suñu bopp. jafe-jafe yu ci jëkk rek mooy euh, dañoo am yaakaar bu wér a wér a ci président Macky yaakaar gu ñu amoon ci moom mooy moom ci boppam moo ñu ko njëkk a limal ndax moo ñu nee woon président bi xaw ma chef de village bi chaque jour mu ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ne mu ngi koy def te mënu ko te saay bu teewee lu mu mën ak lu mu mënul dina ko fexe ba defal ko askan gi. ndax chef du village bi day am gan yoo xam ne toujours da leen di recevoir ay këram ñiy jóge ci état wala ñuy toogal état wala liggéeyal état ñu ñëw te amuñu fu ñu dal chef du village bi yor leen ndax 10 jours ndax euh, euh, heure yoo xam ne daal dañu leen xaw a bari mooy jox moo yor seen dund moo yor seen ndox moo yor seen lépp te chef du village boobu de di def loolu mënul lu muy def ndax amul budget amul indemnité boo xam ne mën na ci jënd sax saaku ceeb te xam nga loolu jafe-jafe la ci chef du village boo xam ne chaque jour yaa ngi recevoir ay population yoo xam ne dañoo jóge fële ñëw amuñu ndey foofu amuñu bàyyi foofu wala amuñu accès fenn ci dëkk bi yaa leen waral a saytu ba bés boo xam ne seen aju fajuñu ci dëkk bi ñu mën a dem seen fu ñuy dem. indemnité yi jafe-jafe ci ñun ndax itam ah waruwaay yoo xam ne di nga gis chef du village boo xam ne dafa dox tolloog 15 kilomètres. ñëw ci commune bi war a doxaat quinze kilomètres retourné te amul lenn loo xam ne mën na ko dimbale pour mu am loo lu ko indi te chaque jour sous préfet day woote yor otom dawal otom ñëw dégg nga te ñun loolu amuñu ko te ci askan gi la ñu bokk parce que le wolof yo mbaam gàtt na mais ci jur yi la bokk kon yaakaar naa ne ñun ñi nekk sur la base toogal fi président bi toogal fi ministère bi toogal fi autorité yëpp ah war nañu mën a gëstu nag xam na ñun itam ci liggéey bi métti la ñu nekk ndax waruwaay amuñu ko amuñu indemnité dégg nga lay wax bat si yoo xam ne tey ak mbir day am ñu war a tàkk suñuy badge ku ñu gis ne jox ñu cër xam ne kii chef de village dafa toogal population bi amuñu ko amuñu ay drapo booy dugg ci dëkk war ngaa gis drapo boo xam ne fii mooy kër euh, kër borom dëkk mais amuñu ko te loolu yëpp président waxoon na ko te xam nañu président yéenem ci askanu Sénégal mais nag dañoo bëgg ñu ñu ko jege di ko fàttali ku mel ni docteur Tening da xam na am nañ ci moom vraiment yaakaar bu baax gërëm nañ ko ndax itam lim ñu defal tey ah sant nañ ci yàlla xam nga ñun dafa mel ni commune Ndiaganiao euh, ci wàllu courant bi dañ ñëw fàtti dëgg la xam nga lu tax ndax fii euh, mën naa cinq villages rek ñoo fi am courant te Ndiaganiao doon fan fanweeri village ak juróom-ñett te boo boo paasee caajaay rek ma ne ñaari pël yi si ngeen baam sama mbokk pël yi nag ñaa <laughs> ñaari pël yoo xam ne rek dañoo teg seen wit ndo rek ta ta sampal nañu leen courant fii ba bi ngay àgg Fatick baa ngi ginnaaw Fatick kon loolu jafe-jafe la te nit mënta développer jamais jamais jamais du wér gu yaram du dund gu rafet du lenn ah te amoo courant te ñun nag wax dëgg loolu sonal nañu courant bi dañ koy dégg. dafa mel ni Macky Sall def ñoo fàtti président Macky Sall def ñoo fàtti ci courant bi te Ndiaganiao dama ne département de Mbour commune Ndiaganiao mooy moo ëpp ci biir commune bi ah ci biir département bi kon commune goo xam ne électorat am yi rëy na population am rëy na yaakaar naa kooku lépp looy def itam war nga koo sóoraale pour jox leen seen gëdd dégg nga ñu ne déedwaay suñu yoon baa ngi nii fii bu ko ndox mi fekkaat taw bi fekkaatee fii xa fu ñu jëm du ñu génn du ñu dugg te loolu musiba la ci réew kon ñu bëgg président vraiment xam nañ sa yéene gis nañ sa taxawaay mais jàppaleel population Ndiaganiao ñun amuñu lenn lu dul population Ndiaganiao moom la ñu moom la ñu bëgg ku ko jàppale jàppale nga askan gi yépp te sonn nañu nag. te mu fàttaliku itam te xam ne fii daf fi amoon xarit bu ñuy wax Hamad Seen yàlla jël ko muy doomu Ndiaganiao Hamad Seen moomu monsieur le maire Gana ñu ngi la doon àndal d'accord gis nañu ah. lu mu def euh, tuutiwul côté googu mais bu ñu sanoon nag ah xamat seen moomu du ñëw ci xelam toujours mu mel ni tey bu gisee ku mel ni docteur Tening mii di doom di jarbaat am taxawaay bu rëy nag ci askanu njaga ñaaw dañ koy wax ñëpp rafet lu ko muy benn chef de village du ko weddi deful lenn bàyyi chef de village bi lépp lu mu am sacrifice du machine moulin du lenn daal loo xam ne baax na ci doomu aadama xam nañu tey bu fekkoon ne tey moo yor transport njagañaaw du am problème mu transport bu fekkoon tey moo yor problème mu yoon njagañaaw du ko am indemnité yi tey bu mënoon salaire am bi mu du ko dagg jox ko chef du di dina ko def kon loolu dañoo bëgg président xam ne euh, directeur directrice nationale la mais te dul Dakar rek ak euh, ak ndombu tànkam da ko delloo si askan gi te ñu di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm. di ñaanal chef du village yi itam ndax sonn nañu am na ñoo xam ne tey dinañu dox 15 kilomètres ñii 20 dégg nga te wax dëgg yàlla ay kilifa la ñu bàyyi seen lépp di doxal commune bi ñun dañuy fay impôt chef de village dañuy couvrir impôt pour yóbbu ko trésor public te loolu lu am solo la mooy doxal réew mi dégg nga kon ku mel noonu doo ko fowee bëgg nañu daal ñu toppatoo ñu. ndax tay duñu def lenn lu tegginuwul duñu ñu sànni ay xeer duñu ñaxtu duñu toj duñu yak. yàq mais nag ay kilifa lañu bëgg nañu ku ñu dimbale nañu président xool. tey dama ñëwoon pour daje chef de village ou commune Ndiaganiao di fàttali ne Ndiaganiao fait presque 60 mille habitants avec 38 villages donc tey euh, dañu ñëw pour waxtaan ak chef de village yi parce que xam nañ ne bëri na yu ñuy jàmbat parfois ci ci rajo yi wala ci télé yi ci wàllu yoon ci wàllu ndox ci walu courant donc di jambat yo xamné euh té gis nañu président Macky Sall teg na programme yo xamné euh tel que les accès universels à l'électricité parce que président nee d'ici 2025 dëkk yëpp war nañu am courant d'ici 2025 dëkk yëpp war nañu am ndox bu doy d'ici 2025 également infrastructure est yoon vraiment war na toll fo xamné ku ci né di nga bëgg dem fu la neex sa yum la donc loolu bu ñu déggee jafe-jafe yooyu ñu koy jàmbat te ci jàmbat yi yoon bi par exemple defar yoonu Sandiara bi tey presque ministre Oumar Youm li ci wax yëpp def na ko bu mu des ñëw ñëw tabax tali bi moo des parce que def nañ ñëpp ba signé contrat yi affaire ndox bi également tuyaux yi nga xam ne dañuy yàgg te xaw a màgget ndox bi du gaaw a ñëw wax nañu ak OFOR ñoom def nañu xool nañu def nañu mission ak sewox ba dugal ba programme boo xam ne dañu war a changer tuyaux yooyu pour ndox bi gën a jàll ci population bi wax nañ aussi si si euh, électricité bi parce que président comme dafa ne d'ici deux mille vingt cinq ñëpp dañu war am courant daal di xayma benn programme boo xam ne Sénélec moo koy dérouler aussi wax nañu Sénélec mu ñëw euh, defal xoolal ñu village yi nga xam ne amul courant ndaxte boo xoolee cinq villages moo ci am courant wala six pour que yenn yi ñoom ñu ñu defal ñu fi courant ñoom ñu ngi programme mission pour ñëw pour xoolal ñu loolu pour mën ñu defal aussi courant fii ci Ndiaganiao waa chef de village yi moom ay jàmbaar lañu donc comme ñu ko waxee seen liggéey métti na parce que ñoom chaque jour dinañ leen wooree ñoo ñu bëgg déplacé wu chaque jour mën nañu recevoir gan bu jóge fu nekk ñu war leen dalal war leen jox lekk war leen jox naan événement bu jotee ñu war a cotiser war a et cetera donc seen te it ñoom ay régulateurs sociaux daanaka moom ñoo uufee askan yëpp daal donc ñoom seen liggéey métti na donc comme ni nga ko waxee sonn nañ waaye nag lu euh, ñuy lu ñuy mbébét président Macky Sall di ko xalaat pour chef du village yi mooy jox leen indemnité pour mën leen yombalal seen liggéey jàppale leen ci liggéey seen liggéey loolu la ñuy ñaan ñu yeggali ko rapidement pour ko vraiment ñoom ñu xaw a soulagé wu. vraiment gën a gën a mën dal, seen liggéey daal gën a mën jàppale nit yi parce que xam naa yenn saa yi dinañ bëgg a def dara loo xam sax seen kàttan du ko mën waaye dañuy jéem vraiment ba ba fu ñu peut-être euh, indemnité yooyu gaaw ñoom ñu mën cee jot ñu ngi ñu ngi tamit bëgg carte professionnelle ak ay drapeau président mu ngi liggéey ñu ngi ñaan euh, ñu jot ci ak lu mu